argumenté naa ko ni ma ko gisee ça ne veut pas dire que suba si taman daan mu lo ah. mais ça sera une très grande surprise man du ma ñaan Siteu sama liberté déedéet du ma yalwaan Siteu suma liberté du ma saraxu Siteu sama liberté déedéet parce bi ma yàlla di sàkk tàggu tàggu ko moom jàmm gën du Siteu yorul ay milice Siteu du nit koo xamante ne que dafa am nu mu toll ci réew mi ba sañ def ci réew mi lu ko neex wala mu wax lu ko neex te dara du ko ci fekk moo tax démb ma mettre ko devant les mooy man ak faddam fii ba làmb ji jeex lépp lu ñu arrivé c'est la responsabilité de Siteu li may wax nag. du ragal. du dam de Birame Yacine. waaw du ak Birame Yacine. li may wax ni wallaahi azim du waxi ragal man Grand Yoff laa dëkk fii laa juddoo fii laa yaraw su te bu taxaw ne ma doo dugg jàmm gën ma taxaw ne ko doo dugg Grand Yoff yow. te barki alxuraanu karim su ma taxawee ni Siteu du dugg Grand am naa ci dëkk bii kàddu googu du fi dugg. ndax lu am jàmm gën benn am na grave mille fii la ñuy donc ay propos yu irresponsable la devait devait être un exemple ci sama xalaat boobu. wala boog man noonu laa ko gëmee woon mooy dafa ànd ak ay xale Siteu supporter am yëpp ay xale la am ñu ci conscient am ñu ci inconscient. am ci xam am ci xamul ndaanaan day moytu gaaf xaw dégg Modou Fadel. Mm-hmm. laay dégg ndaanaan. Mm. day moytu gaaf. yoonu Siteu dafa gudd tere soo ko tàmbalee soo waxee loolu la nga doon wax sa sa borom dogal ko Siteu nan lay dundee après wal dafa jàpp ne ko boobaa dara du ko ci fekk. lan moy sa problème pour ba yu melni sa bu amé rek ñu bëgg la mettre à garde ci fi nga jëm dalon na la pikine ñu né pour du dugg pikine fadam du dugg pikine lan la wa xam nga dafa am fu lamb tollu té war ko dépasser muy fan moy lamb dafa tollu batay ci violence surtout la violence verbale té lolu képp kuy nit ku gëm dëgg lolu dang koy combattre bec et ongle mbër yi moomuñu réew mi. non mbër yi ñun gënuñu ñu tekk ci dëkk bii. làmb ju am xa suñu buñ ci amee xalaat dañ koy wax à sa juste valeur keroog ba coowul Pikine la tollee wax ba ma la waxoon laa la faral nga naa man la lii Pape Sarr di wax intéressé wu ma. Mhm. te walaayee si wax intéressé wu ma mais dinaa ko mettre devant les man aw benn carrière si mooy fayee ko ay cent millions ki deux cent mais ndaanaan day moytu gaaf ndaanaan da koy moytu de wax ju wax ju rëy la wax si te a été dépassé par ce combat là te démb je l'ai lu dans ses yeux attanul combat bi attanul bés ngay wax parce que adversaire ne la mais ñii lan lañ la def Modou Lo loolu la ko def est-ce que ñii dañoo war a toog di wax yow ci yow lu la neex donc Sénégal gi yëpp dégg nañu Sénégal gi yëpp dégg nañu li mu wax ku ñu tekku nag nga tiir ragal yàlla sama ruug yi ba ko yàlla di bind ci te mais daal na Sénégal yëpp xam na na Sénégal yëpp dégg nii fii ak làmb ji ba ca gannaaw làmb ji bu ñu bant xool xoosee ça ressort de la responsabilité de discipline yow ak say famille nan lañ koy dundee jaboot nga te kilifa nga tam ci réew bi ah, retour yi nga jot après bi loolu amee non du leen neex certain ah, parce que boo en fait je suis un mari je suis un père dama may rakk gis ngeen sama doomu jigéen bi ngay xale nga am na ñooy mag hmm. mais mooy eh, man maa jël sama responsabilité dugg ci làmb te coow lii xanaa xëñ na peut-être ñi ma xamul mais un Modou Diouf wala un Mbaye mën nañ ma du lu may. du ci non non du may def dara wala lu may kii quoi. mais dafa am lu ma gëm am benn logique bu may xeex te incha allahu rabbi dana am j'ai vu la même scénario que diggante Modou ak Balla Gaye 2 le même scénario diggante Yaxya Diop ak Bécaye Mbaye waaye bilaay le 24 yàggatul le 24 luy xew je reste sur ma position faram Siteu daan na modlo moy suma surprise man le modlo dans daan na du surprise ci man Siteu analyse boobu lay bañ dig dégg d'accord daa da xex modlo Lo ko bëri ëpp ko entraînement ëpp ko explosivité ñi modlo bolé ci ben boole daan dans Siteu daanagul ñooñu

yan matuwaay bi ma xëyee def naa li ma war a def. may remercier chef ba bu euh, cybercriminalité moom di suma grand di suma lépp maître Ali Ndiaye maître Ndiak ba sama xarit kooku ñëpp ko xam ak man donc te. waaw non mënuñu sama gars yi bu la xam te na ma ko waxee woon démb noonu laa koy defee parce que je suis un homme de parole de principe. bi ma xëyee def naa li ma yoon may ñu xool nag est mi am na yoon capturé naa vidéo yi ak képp ku commentaire menacé ma say comment say commentaire capturé naa ba collecté ko muy benn dossier ma dem si cybercriminalité déposé suma plainte contre Siteu ak ñi nga xamante ne que dañ ma doon proférer des menaces de mort waaw mooy ñun ñuy wax ci làmb am fulla am fayda bañ a à la pression des lutteurs wala de leurs supporters amuñu droit boobu Gris Bordeaux est le président des lutteurs en activité na dajale waat ses troupes wax leen dëgg Siteu li mu waxee démb on ne parle pas comme ça aux gens dama gis Siteu bu beew démb bu beew wallahi azim est-ce que du dafa entraîné ba yëg yaramam jàpp ni moo man non du doole dafa beew parce que nee na ndaw su entraîné ba yëg boppam day jàpp lu taxaw ci kanamu moo ko man ci est-ce que yëgul loolu ñu ko ëpp doole la jaar nañ fi te taxul ñu beew nit du oh, farel as gor du beew du naagu cité bi dama gis cité bu beew tout est permis de dire fii sama frontière la su ngeen àndoon nag garde présidentielle du ngeen fi dugg kii cité dans ce pays là. loolu bi amul yoon. ok wala moom dafay benn citoyen à part entière donc il arrête. est-ce que tey nekkul ci yoon ku mel Lamine Samba waroon na taxaw antenne bi en direct du ko ñaan. man kenn du ma ñaanal. grand Lamine suma grand la. xëj na dafa doon wax da doon wax de bonne foi. mais bu mu nee maa ngi ñaan laa ko ni man ma kenn man je pas du ma ku commandé commandé sama liberté ci Siteu quand même pour lan Siteu juruma jënduma moomuma moomul réew mi du ma ko commandé suma liberté que ñoom comprendre nan seen communication pour jaay. non non non woon nii kenn déggu ko woon du ñu du naa la bu alaaji cukkali duggee ci làmb ji mu neex. buur bés bu duggee ci mbir mi mu neex. Mbaye Diop. Madoune Diouf. xam ngeen ni je me suis ci li ci laa mos ne te du ma d'accord buñ la teelu yàgg yaa ngi door a yeewu activité bari di sant ñëpp Fadel di sant waa grand suma koon fii dëkk bi Mbërum Diouf ak mooy fàtte léegi ak exemple 4 ak Noir di nuyu 66 bloc 66 bi yëpp la ko tàmbalee yaakaar building wàcc dem Badiane ba dikki FC Grand Yoff jàdd daaru lewna gangi dibo yoon wi zone de captage escape urbam sikap foire yaangi ngi woote nag bëre nga nuyu arafat ay way duudu ay way arafat sama gaay wa sendala opin ay way duudu ana opin ay way duudu ana dérangé mafia daaru ay way duudu ana mafia daaru bi nañ dal rek gaay fi lañu serlo juuf fi lañu serlo ñoma gëna xam limay wax grave du dëkku ngaaka de la laa grave ngi ya tu ya tu nañ dal rek wax ji wax ji du bour ngant wata du fadam bërëm yasin wax ji xama kan la ya usama la ilaha illallah ay eh, ya usama bala 24 hein bala 24 mais nak bour ci tanam mais dañu gis tam ni dañu rek mooy li am loolu laa gis de. ah. Mbaye Diop lu mu ci am. lu mu amoon ci la béykat lu mu amoon ci Papa Sow. mais buur dañu dañu gis dañu gis euh, euh, dañu gis dernière sortie dernière sortie màgg ci doole macha allah màgg ci ci ci ci ci masse màgg ci bëre màgg ci sañ teg Lac de loo xam ne ñu bari amuloon yaakaar Siteu dina ko teg Lac de kon boo ne Siteu amul yaa am amoo yaakaar ci moom ci combat boobu tam dafay xaw a doy ci Siteu ñu ngi gis ñu mu abrégé combat ak Lac de Guiers yow kon am nga ci betteel. Fadam yow Fadam le 25 daal Siteu le 24 Siteu na daaj li ma wax. ba ma gis leen ni Siteu bëreeg Lac de Guiers kon amoo ci betteel. mu loo bëri du bëre genre bëri boobu. du bëre bi Lac de Guiers di bëri. Modou Lo xam ni Siteu jàpp ngeen moom rek la bëgg <coughs> moo la gën a xam. Siteu bëgg na bis bi de. saa waay Modou daa jóge fi ñoom fi ñu ne la jóge Modou bëreetul nekkatul mbër. Modou lan la. Modou Lo est un vrai athlète. Modou Lo est un extraterrestre. Modou Lo est un combattant. parce que li jaaxal ñëpp Siteu bi mu commencé fi mu dooree ñu naan du mbër comédien la Siteu du mbër muy def carrière Siteu di rayante di rayante di ray boppam di ray boppam ba yegg si fi mu yegg parce que ñoom ñaar li tax seen parcours xaw a différent Siteu bi muy dugg ci làmb daanaka man la toll muy rayante di buuxante ba yegg si fi mu nekk tey ba war a bëre ak le couronne titre roi des arènes kon Siteu teg na ay pas yu metti comme Modou Lo ni mu rayante moom tam Siteu la mhm. garmi tey fi mu jaar ba dal ci Modou yombul ci mbër mais Modou ay est incalculable. voilà Modou Lo moom dafa doy waar moom. kenn mënu ko natt. non li muy sóor ci komba bi mën na fa bañ a fekk loolu. lan ci sóor. li mu foog mën na fa bañ a fekk loolu Modou dafa am lu koy préparé am nu waaye di bëre ak moom làmb ji làmbi xel la. du làmbi ay tarkindaa la ñu du làmb ay bayfal bi du yooyu làmb ju Siteu war a teg ci stratégie parce que Modou Lo léegi moo am benn maturité sportive Modou Lo léegi il a beaucoup changé sur beaucoup de choses wala. mais buur li ma jaaxal Modou Lo ñu ne soo ko bëggee daan doo ko indi sañ-sañ ñenn ñi soo ko bëggee daan da nga koy indil sañ-sañ man daal Modou Lo léegi nan la nees mën a mën a def pour bëreeg Modou Lo. moo tax man la c'est un extra très si kenn xamul lu. parce que ñenn ñi soo ko ërtalee doo ko daan soo ko respecté wul doo ko daan léegi nan la nit mën a def pour bëreeg Modou Lo. wallaahi kenn doon kenn ku yàlla mi ko sàkk xamul li mu daa complet de moom. Fadam. ma Fadam de man moom ñu may ñu tere jàmm gën. man man laa tudd Fadel laa tudd man damay dugg jàmm gën dugg parcelle dugg fépp. mais Fadel ndax loolu. waaw looy tàggatoo ci <laughs> waaw man je l'ai vu sur sa communication en tout cas gis nañu benn cité boo xam il est sa peau hmm. ak lu mën am moo yére bi mu sol démb yëre boobu laan sol. Hmm. waaye nag daggal na yaa Ousama bie bu bees tàq. waaw hmm. ah, daggal na ko bie de. ah. ah. ça veut dire démb si daggal na daggal na yaa Ousama bie pour le 24. ah bon neex naqari la bataille de Dank Orali. nga wax lan ci bis bi Mansour Ba tëgg muy waa jàmbaar di ay xale ñoom it am ay nit ñu am vision ci làmb souvent seeni i bis tam wax dëgg yàlla ñu ciy innové Mansour Ba di jàmbaar di koo xam ne jëf lu bari wax tuuti loo mën a wax da ngeen ne Mansour waxam bariwul te jàmbaar la mu jub bis bu rëy ñu ñaan yàlla may ko ci réussite total Mansour Ba ak waa jàmbaar nga wax lan Sénégalais ñuy daw jënd cot yi ndax bis boobu nag bis la boo xam ne yaakaar naa ne ku mandiwul làmb dootoo mandi làmb Mansour démb dafa contane xol dafa set. ndax newon na ko grand gàtt wata bu ñëw fi sotti. mais ngàtt wata nak bi après il faut ñu génn ben xar tudd tudat ko. démb la lan démb la lan alxames alxames bi ñëw dañuy tuddal bur ngàtt wata donc Mansour ñu ngi def ay exploit yu ama am solo. xale bu très intelligent la. xale bu am fit la xale bu xam nak la aduna di doxé donc ñu di ko ñaanal plein de succès ak réussite totale ci bés bi ah mu nekk bés bu sedd guy ñu ñaan yàlla yàlla na nekk ci bés yi gën a sedd amiin waay Mansour bu ci tegoon fukk yàlla na ci am téeméer yàlla am na ko man na ko di ñaan yàlla yàlla yàlla def jàmm ci réew mi amiin yàlla yàlla yàlla def jàmm ci maa ngi kontaan maa ngi bëgg jërëjëf bokk yi ñu wàcc sunu kàddu kon lii mooy li ñu waxtaan bi ñu jël ci woon tey ak buur waxtaan ak moom lépp nag génnul làmb Siteu Modou ay frère lan ki ko tëgg Mansour Ba frère la ci ñoom ah, nan xam ni c'est le sport qui gagne te mënta weesu sport Ama Balde Modou jaar na fi Ama Balde keneen jaar na fi Modou Lo Boy Niang jaar na fi lii mënta weesu làmb Siteu Modou Lo mun na fexe ba bokk nu réew mi bokk nu Sénégal nan ci wax jàmm def si jàmm que le maire gagne sport mooy gagné Mansour bis bi yàlla nañ ci réussite total jërë ngeen jëf